لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجارا في البراء يا سمدي لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في براء يا سمدي مدلنا الإسلام والكفر معا وبالنصيحة لكل سماء يخوض بالظاهر والباطن من أتاه لله في كل زمن خدمة وأن الويوب ذبات والاستقامة وصفوا وهبات لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فدلوا رؤوسا خلقا ما فوق كل رقبة من استعار الهر كل من خبا محمد المزال لم يأتي فيما مدى وعبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثلا لو فمثله لم يرد لو سيادة لو البراءة يوم ألست ولد سفاء هو النبي والرسول والخليل وهو القبيب والإمام والدليل برأه البديع من خير جمال وسانه قدوس عن خير كمال كون النبي المنتخى محمد خير الورى المدار عند السمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى مطار عند سمدي كون النبي المنتخى محمدي خير الورى مطار عند سمدي كون النبي المنتخى محمدي خير الورى مطار عند سمدي كون النبي المنتخى محمدي خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتخى محمد خير الورى مختار عند الصمد سان إلهي بالمنى جهادي وابدا أخنا يدي أناتي سان إلهي بالمنى جهادي وعبد أغنى يدي أن دل علي العلماء وأولياء من لا يزال قوتي وخوليا دل علي العلماء وأولياء من لا يزال قوتي وخوليا أزيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام قصيدتي فاقت قصائد الكرام ولي تقود أبدا خير مرام هديتي مهجلة كل مليك كان منازيا وزو المليك ما دواج والنزار الله لي بلا إله إلا الله ما دواج والنزار الله لي بلا إله إلا الله ما تواجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله ما دواج والنسار الله لي بلا إله إلا الله ما دواج والنسار الله لي بلا إله إلا الله ما دواج والنسار الله لي بلا إله إلا الله ما تواجها نسار الله لي بلا إله إلا الله asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi suivre Dakar War ñu ngi fii ci kër sëriñ Moussa mbake Serigne Moussa Mbacké mu Serigne Cheikh Xaasim mbake mu Serigne Afia di rakk ci borom Touba Serigne bi Mbacké ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ak internet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 waaw sering Moussa Mbacke nag ab taalibib sëñ Tuubaa la jëmm la ju xeebu joo xam ne eh, la di sëtu sëñ Afiya di rakk sëriñ Tuubaa ah, ñuy nit koo xam ne am nañu ay jaar-jaar waaw am nañu ay jaar-jaar bu baax ci laataa ñu yegg si fii su ma bi ñu giddoo ba mata dal jàng sunu waajur daf ñoo yóbbu daara bi ñu yóbboo ñu jàngi alxuraan ba mokkal ko comme ni ko doomi soxna yëpp di defee boo mokkalee alxuraan fii ñu lay bindloo kaamil ci lañ bind kaamil ba mu egg ki nga xam ne mooy sama turandoo ñu tuddee ma ko di sëñ Moussa mu Basiiru mu Xaadimu Rasuul ab xalifaam mu jël kaamil boobu jox ko ko ma ak moom fii loolu mooy waaw sëñ sëñ Moussa mu sëñ Basiiru moom lañ tuddee sëñ Moussa Nawel nii yàlla def bi ñu jógee foofu tàmbalee jàng xam-xam foofee ca imam Serigne Diop tàmbali nañ fa téere yu bari dinaa bi ñu jógee foofu nag ci lañ laxas dem ndar am na ñu nekk fii ndar sax ñoo xam ne loolu mën nañ koo seede def nañ fa ay ñetti at ba ñeenti at bañ fa jógee itam ñawaat nañ dellusiwaat nañ ngir ngi neew continué fa di jàng xam-xam ba li ëpp ci xam-xam diggante ngir ngi ne ak Tuubaa lañ ko peege loolu bokk na ci suñu jaar-jaar ginnaaw loolu nag ñu ngi ci li ñu suñ Tuubaa bàyyi loon rek di liggéeyal suñ Tuubaa ci Afrique ak ci àdduna bi ndax danañuy faral di def ay voyage yu bari yoo xam ne ngir yaatal lislaam rek moo tax ñu di ko def loolu moom ñu nekk ci diaspora bi danañ ko mën a seede 18 safar li ko waral liggéey boo xam ne Sëñ Tuubaa namoon na ko liggéeyal boromam te mënu ko woon a def ci lu dul mu génn fii di Tuubaa dem feneen ngir defee ko fa ndax li waral loolu su ma koy leeral Sëñ Tuubaa dafa dugg xalwa fii ci Daaru Xudoos gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi dikkee ànd ak waa ahlu badar bi mu gisee waa ahlu badar moom am xemmemteefu bokk ci waa ahlu badar moom Sëriñ Tuubaa bi mu ko laajee yonent bi yonent bi ne ko ñii leen may daraja yi ñu am nga xam ne fu ma jëm ànd ak ñoom fu ma nekk ñu nekk loolu ay xare la woon ngir taxawal lislaam te xare amatul kon nag fii nga toll nii ñu bari ci wàllu yi ak nitu yàlla yi ba ñëwee ba toll fa ñaanoon nañ lii nga ñaan bëgg a bokk ci ñii waaye nattu yi tax doomu aadama mën a tollu foofee lu ci gën a bëri ñenn ñi buñ ci sóoboo condition yi leen tegal duñ ko attan moo waral sëriñ bi ne ko condition yooyu de su ma ko mënee xam ci li ko limal yu baree bari ci ay nattu ak ay coono yoo xam ne ba àddunay tukki yow doo bokk ak nit ñi ni ñuy doxale doo lekk ba suur doo nelaw doo wokkatu doo dox di gestu yu bëri yi nit ñiy def daal moom yow doo ko def bi nga xamee ne nag wax na ko loolu ba noppi sëriñ bi ne ko man de bu ko bakkan bi àtt ne jom ji ji weesu na ko ah ci la tàmbali liggéey bi foofa waaye booba ku mu amagul ñeent fukki at te suñu borom booba dañuy wax ne nijaayam sëriñ bu so nijaayam sëriñ bu so bi mu ngi ci jamono te bu gisee ñu koy teg na nata dana ñaan yàlla mu teg ko te bu ñaan yàlla mu teg ko ci la nag suñu borom dogal ñeent fikk atam bi mu disi tuuti ci la fi sëñ bu Bousso jóge ginnaaw bi nag ci la doog a natt yi doog a commencé mooy nit ñi rooxale gi ñu ko daan tubaab yi ba lu mel ni lu nuru jafe di am ci seen diggante ci la sabab nag mu yónni sëriñ maam Cerno Birahim Mbàkke ngir mu dem leeral leen ko waaye daal mel na neen dafa dafa dëppoo woon ak dafa dëppoo woon ak li nga xam ne moom la suñu borom dogal ci moom ndax lool moom xam na sabab bi moom suñ Tuubaa sababu baatin bi xam na ko bu zahir bi nag mooy nit ñi boole gi ñu koy booleeg tubaab yeeg yu mel noonu bi loolu amee nag déggoo mënta am bi ko tubaab yi convoqué déggoo mënta am déggoo am ci la nag moom doog a doog a ngir dem ndar loolu moo tombeek li ñuy wax bisu samedi ci 1895 mooy 18 safar bii tey loolu nag dafa am lu ci am doy waar mooy. Euh, ku jëm ci combat di bàkku bëriwul luñ ko gis ñaare ñi ñu jugee ci combat di bàkku la gis waaye koo xamante ni bi muy départ di dem bis boobu lay màggal kon xamoon na ne dina am victoire dafa am yu bari yu sëñ arabi ñas mu euh, maam xalifa ñas dafa wax ne moom dafa am xaside gu sëñ Tuubaa bind laata muy dem njëkk guddi guddi li bu mu waree xëy dem ci la bind xasbunallahu wa ni'mal wakiil mooy xamitu man yaxsimu ni mën a dara bi mu xëyee nag ci la dem ci samedi ji mu demee ba jeewal fa la dajeeg tubaab bi mooy escadron bi ko doon jël si nga xamante ni ay centaine de officiers lañ bi mu dajeeg ñoom foofa ak yee ca xew yëpp comme bëgguma guddal ci loolu waaye daal moom nee na leen fii laay fanaan ci la ci la ci lañ ci lañ mujj way Dakar lool ndax fii baaxawuñoo gis yaa jamono yooya tubaab boo xam ne day jël si nit nit ki di ko conditionné ne ko lii laay def mu nangu ko bu mu ne ko fii laay fanaan ñu ñu d'accord ca loola fanaan ca bañ xëyee sëñ bi moo leen yel boppam mu ngi mu ngi yéegoon ci benn fas woo xam ne mu ngi tudd awnullaahi fas wu gaaw la woon ci la ànd ak ñoom ba Louga ci la jël li ñuy wax gaal gu jéer yi mooy saxaar ànd ak ñoom dem Ndar bi muy bi muy demee ndar nag ci la bind xas rek asiru asiru dafa am baatin asiru fa lañ ko bindee ndar lañ ko bindee asiru maal abraari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru maa ngi dox ànd ak tubaab yi nekk ci seen biir eh, mi ngi mel ni gendarme yi ñëw fii di jël si kenn jiital ko ni ñu ko jiitalee mu nekk ci seen biir noonu xam nga dañuy jàpp ne ab prisonnier ab prisonnier la yor léegi moom nee na Sëñ Tuubaa nee na ni ma nekkee ci seen biir ñoom dañoo jàpp ne ab prisonnier moo nekk ci seen biir te xamuñ ne boobu maa ngi ànd ak waa ahlu badar ndax loolu da ko jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ci la bindee ci la waxee ci xasida googu xusóor yi xallat wal ahlu anni tafarraqat li matxi lazi anhu l madihu xasiru samay kër wéet na sama njaboot tasaarooñu te loolu lépp dara waralu ko lu tag tagg may tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam xasida ak asiru mooy seedeeg Sëriñ Tuubaa ci ak demam moom bi nga xamee ne mi ngi dem Euh, benn ñaari mbir da ci mat a seetlu ci biir xasida gi mooy euh, bi mu bindee xasida gi daa am ku mu ko jox ne ko lii moomay seede sama diggante tubaab bi dinaa bi ñëw fekkaat la fi jeex na suñu Ahmadu Njaay maa bi la ko jox benn benn bi moo nekk noonu beneen bi ci des euh, bi nga xamee ne dem na ba dellusiwaat siwaat Ahmadu Njaay maa bi moomu fekk mu wéy di dund ba léegi bi mu ko bàyyee ndar jox ko xasida gi nga xam ci la wax wax wax yooyee jox ko ko doog dem xasida gi laataa muy jugé Ndar di dem dakar bañ koy yibbu konakri bamuy dem Gabon fekk na mu bind ko benen bi ci top moy circonstance yi ko bindé nit mënu fa tolu conscience am di tranquille wa ba paré xasida yi mu bind xasida ak assur moy xasida gi ci gëna jafé jafe xamné baat bi ni mi commencé mo nuro ni mi jéxé mo nuro té bokku ñu dañuy firi loolu ci assiru rek nga koy gis assiru waaw kay waaw bokkuñu sens loolu moo gën a jafe waaw loolu moo xam nga assiru mën naa firi dox ñu dem ba fële mu firiwaat leneen Sëñ Tuubaa ci boppam da ko composé composition boo xamante ni jamono jooju nit ki bu fekkente nit ki normal la nga xamante ni nekk na fu dal xam nga bindkat yi sax dañuy wax ne pour ñu mën a bind normal il faut que ñu nekk fu dal foo xam ne du am benn bruit du ñu am benn stress du ñu am dara wah wah kon loolu dalay leeral ne mom sëñ bi jamono yim koy bind mom nit ñi mu àndaloon ñuy nuru ay tubaab ak ay gendarme ak ay yëf jàppe wu mom woon mom ay jamm yalla rek la dañ jàppe woon yoo xam dañ koy dimbalé ci liggéey bi mu bëgg liggéey yalla loolu ma waral nak li li am ni tay ni nit ñi ñew fi di sante yalla di sante Serigne tuba ki talib Cheikh Ahmed Tidiane la gis nga ko mi ngi nii ñu julli ñëpp di sante yalla ngir mom lolou

seen tribunal yi it seen eh, jaarale wuñ ko ci yoon xam nga nit koo xam ne da nga koo jàpp tuumaal ko ay tuuma war ngaa def ay enquêtes yu wóor bala nga ko teg ay sanction xanaa <laughs> waaw léegi nag loolu boobu ñoom civilisation bi ñuy wat boobu amaguñ ko woon ñoom tubaab yi ñoom ñoo civilisé woon ñoom nee nañ bëgguñu civilisé waaye booba lañ doxal histoire wane ne civilisé wuñ woon ndax nit ki ba fekkee da koy jàpp même ba mut avocat sax da nga ko war a jël waaw loolu mooy yoon léegi nag bu fekkee loolu lépp amul ñu pasar pasare ko atte ko rek Euh, ba noppi exilé ko loolu day wane ne ñoom civilisation bi ñuy woote moom tey lañ ko gëm waaye gëmuñ ko woon dem muy benn ndax atte bi dara jaru ci yoon ndax amuñu benn preuve buy wane ne liñ ko doon tumaal muy sëñ bi dafa bëgg a ak yu mel noonu amuñ ci woon benn preuve sëñ bi it biñ ko waxee ne ko dañ nañu da dangay da ngay indi leen ki ko ki ko wax foofu rek la wax indi leen ki ko wax waaw bu mënuñu ko woon indi foofu fa lañ ko njëkk boole gaynde ci ci kii bi lo waaw loolu foo ko mën foo ko gisee ci ab ci ab euh, li ñu woowee république xam nga civilisation ci lañ toll fi mu ne nee nañ laa bëgg a leeral bu fekkee ci lañ toll yow euh, ñoom ñoo ko fi indi te loolu lañ bëggoon ñu def ko nee nañ léegi nag xanaa nit euh, ah, jamono jooju ci ci la amoon institution bu constitution bu amoon amu ci fenn foo xam dañ naan nit boo ko àtte da nga war a boole gaynde moom loolu moom kenn amu amutoon dégg kon loolu ñun civilisé wu muy benn ba ci toppit jëlaluñ ko avocat ba ci toppit att bi ñoom képp ko att sëñ bi it xamul ne att nañ ko ndax la preuve li xam li nga xamul ne sëñ bi xamul ne att nañ ko da dafa jékki-jékki ñu koy yóbbu ñu yóbbu ko Ndakaaru dugal ko ci saxaar ñu duggee ci saxaar gi ñu demee àgg Ndakaaru ñu ko ci benn néeg néeg bu tàng boobu ngay dégg noonu mooy tam am ay jam-jam ay yu mel noonu mooy ñaari guddi Ndakaaru yi wax sëñ bi sax waxal na ko boppam nee na sama ñaari guddi yooyu su ma ko xalaatee sama xel duma jox lu ma juk jihad ak tubaab yi waye yonent bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam mo dox ci sama diggante ak jihad dégg nga foofu wax na ne sun mam jaaratullahi fek nako fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam fek nako fa babu moy natti ci néeg bu xat bobo néeg bobé ci la ci fast test bi fofu la won moy premier test bi ko don test ba xam mom amna ak ragal wala wàll fast mu ngoog foofu lañ ay ràbbak ak ay lu fa def néeg bu xat boo xam ne te boobu dafa dafa yendoo woor ba ngoon jot war a dog ñu dugal ko foofu benn dogut waaye moom boobu méttiwul ci moom ndax xol mooy metti xol mooy sonn xol mooy am yëg te xol bu feesee dell ak yàlla suñu borom ak rasulillahi sallallahu alayhi wa yaram wi du dara xotti la rek loolu moo tax moom coono yooyu waa koy amul ah? def na fa ñaari fan ci li ñu wax version yi bari na am na ñu ne ginnaaw bi lébu yi am na ci ñoo xamante ni ñëw nañ ci tubaab bi ne ko dañ ko bëgg a téye jël garantie ba fii ak ñu koy jël dugal ci bato di ko yóbbu am na ñu wax loolu am na ñu wax ni des na fa jusqu'à muy jël bato bi mooy île de Pernambouc googu noonu moom moo ko transporté yóbbu ko Dakar gii la départ bi muy depart ba ci biir gaal gi bu ñëwee ba nga xamante ni agsi na Conakry te diggante Conakry ak dakaar ñu leeral ne foofu la jullee ñaari rakk yooyu ñaari rakk julli géej gi ci diggante Conakry la ak dakaar ba bu mu déparé mooy bu mu duggee ci gaal gi bato bi heure julli jot ñu ñëw comme ni ba léegi sax day am ci suñu suñu policier ak gendarmerie ah nit day ñëw say àq ak say yeelef duñ ko matale dangay gis ñu di la kàngeetloo di la romb di la def façon yoo xamante ni day am ba léegi loolu dafay am Euh, bi nga xamee ne nekk na ci biir bato bi nag yàlla def heure julli jot nag nanguñ ko may mu julli ndax li ñu ko njëkk wax mooy gaal gi suñ gaal la waroo ci julli te su su te lim lim si ñëwoon ak yàlla moom faatu waxtu bokku ci ci la jël euh, der bi daal di koy sànni nag ci ndox mi ñu yaakaar na day cinéma waaye leen gënoon yéem mooy capitaine bi gis na ne der bi moom amul moteur te gaal gi réew ko te gaal gaa ngi daw loolu mooy premier kéemaan bi ci am sëñ bi li ko wàccee ci der bi eh, ñoom xamuñu ko ndax gaal bi am na hauteur tuuti diggante ak ndox mi ku xam gaal xam ne gaal buy daw fi ndox mi toll ak fa nit ñi nekk du nekk benn yaa ngi dégg loolu mooy mooy bi leen gën a yem bi mu wàccee it ci ndox mi gis nañ tànk bi bu ñu ko tegee benn tànk bi laa dugg ba ci biir tànk bi dafa ndox mi dafa nuur benn tànk bi bi mu tegee benn tànk bi maanaam benn tànk bi daal nuur dafa tooy dañ ko doon testé ndax li muy gëm na ko bi mu tegee beneen tànk bi mu daal di dëgër ci la julli foofu fi la julli tisbaar wala tàkkusaan ñaar yooyu benn la ci noppi nee nañ dafa joxe loxo ñu jóge ko ci gaal gi boobu nag ci la ko commandant bi ne ko yii de moom gis ma ko lu gën a def kenn gënu laa gore kenn gënu laa dëggu waaw ndax ni nga def ba wàcc boo ko defoon dem sa yoon te kenn du la wëri jeex na ni mu def ba wàcc it su ko defoon këpp gaal bi moom dem yoon waaye moom comme li mu signé woon loolu bokku ci dafa war a liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa war a liggéeyal yàlla te liggéey boobu muy liggéey amul lenn loo xam ne moo ko war a yàq te loolu mooy li ñuy jariñoo nii tey wax naa ko daawoo ma ne euh, lii ñuy bànneexoo nii tey ci bis bii muy di si safar bii coono bi Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa dafa ngir ñu noppal moo tax moo tax jullit bu nekk amel na ko njukkal ci la jaar Conakry jóge fa jaar euh, kii Grand Bassam ca Côte d'Ivoire foofu yëpp dem naa tek teg fa sama tànk julli naa fa julli fa waaw Conakry fa mu julli waaw comme nii rek ndax xam nga fu ci fu ci la rek tefes la xam nga gi escale rek la waaw waaw waa xam nga non xam nga gaal yooyu gaal yi bato yooyu bato commerçant day wër rek léegi dëkk bu mu romb dafay jaar loola waral foofu yooyu muy jaar noonu loola waraloon mu jaar fa sëñ bi Conakry la xamee ne Gabon la jëm xamul woon fu mu jëm ñoom bi ñu amoon waxuñ ko fu mu jëm waaw civilisé wuñ ko <laughs> kon ñi roy bi ci civilisation nan roy keneen nan roy suñ tubaab moo gën waaw waaye ku lay ku lay ku la àtte ba noppi di la yóbbu taw xoolal fu mu jëm kooku dalaa bëgg a <laughs> waaw. waaw ci la da jaar Grand Bassam jaar Porto ko ca Bénin bi mu jógee Bénin nag ci la doog dem Gabon waaw Gabon googu nag dafay gudd waaye euh, dund na fa daal ay coono yu mett yu bare bare bare bare yu ñu ko teg yoo xam ne la ëpp ci liggéey bi nga xam ne moom doon liggéeyal yàlla moom foo la ko yàlla fayee ndax bi muy doog a dem toog na ay biir boo xamante ni moom waa senegal kenn dégg ko ba tubaab bi sax dañ doon def jima def ki yabal fi ay nit jox na ay lettre nañ sëñ bi wa àdduna waaw so won nañ ko waye bobo wajur mam Cerno Biraay mi nga xamne ne tuba da ko mës a sëñ Tuubaa dafa mës a jagadi mu togal ko ben laax mu jox ko mu jëfëndiko ko xaw a ci la ne ko lo bëgg ma defal lako ko mu ne ko man de dama ragal bammel mu ne ko xana kon suma la ci dugalee sama bop di nga ko ñëmé mu ne ko waaw mu ne ko kon maa la ci dugalee sama bop kooku moo ne ni suñ tubaab du wax lu mu def buñ ne jógee nañ fi rek waxuñu dëgg waaw soxna Fatou Issa Diop mooy waajuru maam na Birahim ci la wax maam Thierno loolu ci la ne ko nag boo ko sàkkoo gis ci guddi gi di ko gisal sa bopp ci la xel yi daal di soog a dal nag diir bu gàtt ci lañ gis mu benn senegale boo xam ne sëñ bi dafa génn fa mu nekk ca Gabon rek dégg muy wax olof mu woo ko na ko na ko noonu naa wolof nga wax mu ne ko waaw mu ne ko foo dëkk mu ne ko Sénégal mu ne ko foo dëkk ci Sénégal ko Thiès laa dëkk mu ne ko xam nga sama taalib bi ñu wax Ibra mu ne ko waaw ne ko boo dem naa la yóbbante ci moom ci la ko jox ay leetar jox jox Cheikh Ibra jox maam Thierno jox ñu bari kenn ku ci nekk li li waroon digal ñu la ko leetar yooyu moo justifié moo moo signi moo justifié ne sëñ bi mi ngi ci mi ngi ci jamono ak ñi nga xam ne amoon nañu baatin te mënoon ko gis waaw loolu daal mooy kii bi ci ci gabo ginnaaw bi nag ci lañ def eh, ci la ci la sëñ bi yàlla dogal liggéey bi mat mu delu ci 1902 wa bim wa bim mu jaar Nasar sara jaar fu bari soog a ñëw Daaru Salaam gii ci rek mam Cheikh Anta ganale Sar sara dekkup sin sire lola sanno sànnoo si maanaam Sar Saara dëkkub Sëñ Siréloo la moom Cheikh fa la wor a weeru koor gi yëpp bi fi jógee nak doog ñew fi fii salam seigne seigne touba Tuubaa euh, sëñ maam Cheikh Anta rakam mu bokk seigne afi ndey ak baay daal di koy ganale fofé waaw ginnaaw bi nag 1903 tamit ñu exi ñu jaxasawaat ko tubaab yi ne daa bëgg a jihaat ak tubaab yi parce que dafa bëgg def vengeance euh, waaw waaw daf ko metti ba bu ñëwee mbooloo mi dafa gën a bari ba jaaxal leen dañu yaakaar ne mbooloo mi day tas léegi nag ñu ne ñu ne kii daal ñu bokk moom nekk ci senegal daal menace bu rëy rëy la bu wóorul waaw ñoom ba bi bi bi li ko waral mooy euh, bi bi ñuy defal kër bi Daaru Marnaan gii euh, lal yi nga xam ne ñoom la sëñ bi yónni woon lal yi ku ne xam ne ne sëñ bi da ci lantik téere yi daaw ci tëdd dafa am euh, sàmmkat boo xam ne dafa gis sëf yi ñi nga xam ne maam Cheikh Anta mu la yónni ñu jënd ko mu ñëw làmb tànk lal yi yaakaar na fetal la ci la dem nag daa di koy daal di koy daal di wax loolu loolu moo waral ñu convoqué waat ko nag ñëwut léegi ñu ne dañ koy jël si ci la ay négociation am léegi ñu wax ak Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya ne cheikh sidiya bu mauritanie wa ne ko dañu bëgg dañ ko bëgg indi fofu ci yow euh, suñ cheikh sidiya wax ak suñ tuba ne ko ñom dal liñ wax moy bu mënta ñew fi ñom lañ lay yóbbu madagascar fofu tang na sori na mu leen man mom buñ mu mënta bay ci rew mi ñii bu madagascar rek risatul la yemale wa madagascar rek fenen bu mu mënta bay ci rew mi dal madagascar rek benen rew la yemale fu mo ma yóbbu ci la sabab nak ñu yóbbu ko mauritanie ci cheikh sidiya bi ñu koy yóbbee Mauritanie it gis ñu gis na ni mu meloon Sénégal dafa yokk naar yëpp di jébbalu ci moom waaw économie Sénégal bi tàmbali di daanu ndànk-ndànk ndax nit ñi murid yi suñu bàyyee ba noppi au lieu que ñu def ko ci réew mi waaye dañ koy dajale yóbbu ko Mauritanie sabab ñu indiwaat ko nag Sénégal yóbbu ko Thiéyène isole ko foo xam ne waaw ku fay dem da am autorisation wax yoon wi ngay jaar wax li ngay yóbbu wax ko yàndal pour tubaab yi mën koo surve de xam ne kenn ku ci nekk la nga fa indi tubaab bind nañ ko ak bis ba nga fa ñëw ak ka nga àndal ak la nga wax sëñ bi nga xam ne seen ay renseignements généraux yëpp dañ ko doon surveiller fu ñu toll ginnaaw bi foofu foofu nag sori ñu jékki-jékki ne comme murid daal ñu ngi yokk xam naa li ñu nekk ci kaw gee tax léegi lañ leen indi ci taax yi yàq leen la waral ñu indi ko Jurbel pour ñu jaxasoog waa ville bi xaw a ville mën a mën a wàññi bu ñu ñëwee Jurbel nag far yëf yi gën a explosé benn yoon waaw waaw fale fale sëñ bi nekk ba euh, quinze ans yooyu ci la doxu jumaa yi njaareem jooju ci la it santaane woon jumaa yi Touba jii nii ba 1927 ci la ci la ñibbi si Touba fii natt bi sëñ bi bi bi bi ci sëñ bi mooy sëñ bi nee na cat li ma gën a am mooy li ma gën a bëgg muy tubaa suñ borom damaa natt ba dëkkuma fa dëkk bi mooy dëkk bi mu gënoon bëgg waaye njaareem la gën a yàgg dëkk bi maa ngi koy leeral démb mooy benn dëkk boo xam ci Sénégal amul bâtiment colonial laataa sëñ bi di fi dëkk it kenn mosu fee dëkk réserve ba njàll woon mosoo dégg ba mosoo dox ba dégg ku ne sëñ Tuubaa sama suufu su maam la dëkk kenn mosu fee dëkk ma waroon mu koy wër bu waaw bu ko daan wër bu jógee dara Salaam mbedd mi ci sama ginnaaw daan jaar ak tànkam daana def fukki fan duñ ko gis mu jigi sàmm yee ya koy gis wala ñi koy wëri dem gis ko wa fi fi dar ni fi fon dar ni fi fon dara waral tuba maggi waral mu gaaw ndax ndax li fi sëñ Touba ñaan eh, yalla da ko nangu lolu motax ah waaw 1919 lañ ko njëkk a woote waaye def na ko ay at yoo xam ne moom dong ko defal boppam ginnaaw bi nag ci la ne ginnaaw man li ma yàlla bëggoon li ma bëggoon yàlla may na ma ko te doomu aadama itam eh, amut lu mën a defal yàlla lu ko lu ko yàlla joxut yow boo jëloon giléem wala nag wala lu di ko yàlla la ko jox kon nit kii li mu mën a defal yàlla moo saf ko amut lenn lu ma doon ci alal du sant ko mooy nga la in shakartum la azidannakum suñu borom neena amul li ngeen mëna a defal dul ak cant mu sax ndax leen li ngeen ma defal mako mo leen li ngeen ma defal rek sama yëf la wa nak ngeen xamne ne defal naa leen dara ngir di ko sant ma lol mom dina ma saf motax mu ne nak sante gi gi nga xamne ma ngi koy sante yalla lotu na ci man kesse motax bëgg na képp ko xamne ne sama mbég man suma contane contane nga rek nga sante lima yalla lol mom ñepp ci lañ bokk wa wa motax def nañ ko fa lu yag ginnaaw bi su ma ñëwee Euh, ñu continuer di ko def foofa continuer di ko di ko def euh, ba 1945 bi fi siñ bi fi siñ Mor Moussa jugee bi siñ Fàllu ñëwee nag ci la ne euh, li li siñ Mor Moussa daan def suñ bi daan ko def dañoo bëgg ñu yokk ko gën ko ñu daje ci dëkk bi loolu li ko waraloon moom dafa bëggoon mbooloo mi nga xam ne dañuy dikk ci dëkk bi bu ñëwee suy wax su su waxee ak ñu message boobu ñu mën koo dégg ndax boobu moyen de communication jafe na te soññee yi muy soññee ak delloo gi ñu leen delloo ci yàlla ci bis boobu rek ci la ñu mën a daje mën ko def dara waral nit ñi di dajaloo ci màggalu tubaab fii mais bu njëkk kenn ku nekk da ko ñii dañ ko daan defee fañ dëkk ak yu mel noonu waaw dëgg la dëgg la dëkk lay la ne ñu day wan ne suñ Touba mooy solution rek. waaw ndax euh, yàggul dara ci ginnaaw boo xoolee fi Covid bi tolloon ci ay cas yéemoon na ñëpp te loolu it li ko doon si li ko doon dëggal mooy dangay xam nit laata ko ñun la na kon xam nga ne moom Covid baa ngi foon woon am na ñu doon rey te loolu ku ne xam na ne na nit ñi daan dee mu deetuñu kon am na lu waral lool. li ko waral mooy Sëñ Tuubaa lépp da ko fee bàyyi lépp da koo def a bàyyi ko fi bàyyi ko ci njabootam bi bàyyi ko ci xasida yi. gis nga àdduna bi li muy rëy rëy rëy fii ci Touba am na lu fi Sëñ Touba def loo xamante ni def ko feneen ci àdduna bi te loolu li la koy dëggalal mooy Touba gi ni mu mel amul benn dëkk bu gaawee noonu ci ak màgg amul benn dëkk yi boo xam ne man bari naa ay gan lool yi ñëw fii yoo xam ne duñ fi ñëw bu dul màggal yoo xam ne mosuñoo ñëw Touba waaye bu ñu tegee seen tànk ci suuf si dañuy am yëg-yëgu ne fii yëg dañ ci seen bopp ne lu ñu fi ñaan suñu borom def ko kon jàpp naa ne lu mën a xew moo xam covid wax naa ko démb ne moo xam covid la moo xam lu mën doon bu ñu delloo ci yàlla yàlla mën nañu sutural ab jullit yàlla moo ko moom natt bi ko yàlla di teg yàllaa ko koy teg waaye nag su xamee li mu war a def dellu ci yàlla mi ko teg bu ñu la tegee natt ci koy dellu kur yàlla yàlla moo ko teg di moo dellu ci kenn kur yàlla mbas amoon na sëñ bi kenn ku ci nekk da ngaa def li nga war a def waaye li ma la wax weesuwu ko woon nattu la boo xam ne suñ borom moo koy teg doomu aadama waaye nattu bu ko suñ borom teg doomu aadama lu mu war a def daa war dellu ci yàlla <laughs> dellu ci yàlla yàlla teg moo tax suñu mu taxaan nañ dellu ci yàlla njàng xasida yi ku ne xam na ne fii fii réew mi toll nii ña nga daan ña la daan woo naan la sama nangam faatu na sama nangam faatu na ku ne xam na ne wàññi ko ñu yàlla tax wax kay nañ ci nekk rek suñu ndoxaa moom ku ko roy doo juum ndax war na yoon wu leer naññ boo xam ne ku ci jaar doo juum mukk moo tax ñun nañ topp ci ginnaawam rek lu mu bëgg ñu def ko lu mu tere ñu bàyyi ko ndax moo fi Sëñ Tuubaa ndax suñ Tuubaa kat du fi jug de képp ku fi nekk rek day solu ci sa jëmm moo wax moo waral li muy def defu ko moom ndigal la ciy am lu jógee ca kaw moo tax bu nee nañ def nangam rek ku ko def doo xam nga dañoo jugee ci mbas mi di jàmmal ndox mi waa léegi euh, ndox mee tax ñu fàtte mbas mi waaw léegi waxi ndox la ñuy wax ginnaaw avant ndox mi lu daan wax waxi mbas jeexan waaw ndox ndox mi fi ne lu ñu yaakaar ne ma day daa ñëw ngir raxas la fi nekkoon day set wicc man fi ne nii bët waaw loolu mooy bu baatin gis nga nit boo xamul baatin day sonn bu dee at zahir rek lay at day sonn waaye bu fekkee ne nit ñaa gi jaaxle da ngay nekk nit lu yàgg dara nga laaj ñu lefaat lu bare bari kenn ku nekk xam na li wax ñu jek jek jang xasida yi ci ginnaaw suba su mu taw taw bu bari nit ñi jek jek mel yalla dafa génne ci seen xel sax ay mbass ak yoy ndox moomee nag wàcc moo raxas lolu ta lolu ndox mom duko wacc wàcce moko wacc mo tax lepp jeex bu baax baax suñ Tuubaa xasida goo jàng te jubli cee jaamu yàlla mu nangu ko ndax xasida yëpp lañ nangu lépp lu mu bind lu mu bind moom Sëñ Tuubaa lépp lu mu bind rek ci xasida tagg ko yonent bi rek suñu borom nangu na ñaan la yëpp ñaan lépp loo ci jàng te yéene ci ak jaamu yàlla rek suñu borom da koy nangu ala ndax suñ ndax Sëñ Tuubaa la yàlla nangul loolu Sëñ Tuubaa yàlla nangul léppam waaw sunu ay wajur di sëñ Cheikh Mbacke euh sëñ Xaasim Mbacke moko jur sëñ Xaasim Mbacke ku ne xam nako ku ne xam na ni doomi sëñ Afiye Mbacke imam la sëñ Afiye Mbacke mu daan jiital mu daan jiite sëñ touba mom la sëñ touba defoon imam ca ndiarem mu bokk ak sëñ touba ben baye bokk ak maam Cheikh Anta ndey ak baay ñoo bokk nday ak baay soxna Anta Ndiaye Mbacke moo leen jur ñu ngi bokk ak ki ñuy wax suñ Mbacke Anta ñoom it ñoo bokk ndey ak baay euh, sëñ Cheikh di sama waajur moo doon taawu sëñ Xaasim euh, moo njëkk nekk xalifaam itam ñu jaarale ko fa ñuy jaarale doomi kilifa yëpp mu nekkoon ku daan liggéeyal yàlla ci nit ñi nekkoon ku daan tarbiyee nit ñi fu ñu toll saa su nekk nekkoon it koo xam ne ku dëggu la woon lim liggéeyal yàlla ba tey moo fi des ndax loolu man ñu bokk naa ci ndax fu mu mën di nekk ci àdduna bi yàlla def na ci li may xool man mooy intérêt l'islam rek man ngir l'islam jëm kanam rek ci laay xeex saa su nekk ngir l'islam jëm kanam ci lay dox di ci wax li Serigne Saliou Mbacke daan wax naan lu lu lu diine amu ci defar amu ci yàq man foofu la nekk waaw li ñun nag ci loolu la ñu yar loolu la ko Serigne Xaasim Mbacke yar Serigne Xaasim Serigne Touba moo ko yaral boppam ca njaareem kër ga ca njaareem fa nekkoon ci biir kër waa ci kër Serigne Touba Serigne Touba yaral ko boppam ku ne xam ne ne kër gu mag ña fa nekkoon bëriwul waaye moom ci jëm boppam Serigne Touba moo ko yoral boppam yaral ko boppam defal ko lépp tarbiye ko defal ko lépp ci la jugee foofu nag sañ ci dëkk bu ñuy wax Darou Rahman ca ginnaaw ngi ngi neew fal doon defaree jaam ñi ñu ëpp ci doomu aadama yi ñëw nañ fa ñu ci doomu aadama fa lañ jugee baax fa lañ jugee defar ko daa dem dara dem ci dëkk boo xam ne dëkk bépp kenn du ci jullit yàlla def mu tuubal ñëpp loolu amul lu ko gën rëy ci lislaam doomi Sëriñ Tuubaa yëpp fekk nañ ko bokk na ci سن بارم بكر مسن توبا واي نكفا اي واي وخنا يا ربنا كم المراد خاسب بجاه عبدك الرسول الرحيم ويجي مجي سما جناو صلى عليك عدد الايام وعدد الشهور والاعوام كوكو كتول ني سن بارا بيد يوي كوم كو واخ سي جيم رك نيت كو ريغ موم سي جيم بوبو مو خاسب مريل غونك كودول سيرين بي li mu bëgg wax mooy képp ku dul Serigne Touba rek Serigne Xaasim du sa gone moom. waaye nag waaw waaye nag ci wàllu baatin wax ko lëf ci yan bi ci wàllu baatin daal moom Serigne Touba du ci gone kenn Serigne Xaasim du ci gone kenn waaw kon euh, moom waxtaanam waxtaan spécial lay doon boo xamante ni moom. mën nañ ca jël lu bëree bëree bëree bëree bëri doy na ci waaw doy na ci jëmm ju tedd jii rek di sëñ Abdou Karim Mbacke nga xam ne moom la ko suñ fàllu joxoon moo ko yar dina nekk ci sëñ Abdou Karim lépp jëmm ji moo ko ci def waaw man sëñ Abdou Karim ci boppam nee na ma suñ xaas bëggoon na ma bëgg goo xam ne ci biir kër gi sa baay yow man lay wax wala keneen luñ bëgg bëgg ci luñ mën a bëgg ci suñ xaas ci boppam man la ñuy yónni suñ ma yónnee rek buñ demee suñ xaas def ko ndax mbëggeel gu ma bëggoon nee na ma oto bi ma njëkk am ci àdduna moo ma may te oto boobu ci jon jamono jamono yi eh, Land Cruiser rek yooyu lay doon ndax oto oto bi bañ na ko ba seeroon na seer goo xam ni daanaka ba amul fukki junni du déplacé ci essence te nee na moom ko njëkk may te mu ngi fi jógee 83 waaw kon xam nga ba mu fi jógee yàgg na 1906 la gën a àdduna 1983 la génn àdduna jëmm ju tedd la woon si ñaafiyee nekkon jëmu ju sell jo xamne mok seigne touba wala sax dawuñ ko wax arab fuñu mëna toll mbiri biiri seigne bi lu ci ëpp ci loxo seigne afi la ko tegal bis bi mu ko ñëk jité ci jakk ji ci biir kër gi non bokku ak jumaa ji boobu jumaa ji pareegul heure wu julli dafa jot euh, ñu dem ba muxtar mi jeex seigne bi gennu gut seigne afi dox ci kanam bi seigne touba ñëwé li xamal seigne afi ne ko seigne touba ñëw na may parfum bi seigne bi daan xeeñ dañ ko xamé won bi mu bi mu déggee sëñ bi di dugg si mu daal di rocceeku bëgg a génn sëñ bi puusaat ko mu julli ba noppi bi mu wëlbati ko suñ tubaa ko afiya xanaa xamoon ne mën nga ilimaani ku yàlla bind moo waral bi mu fiy jógee ba lim njëkk lim mujj dénkaane mooy suñu afiya nay jiite ba gàmm ko moo waraloon mu daan jiite ba ni mu fi doon nëpp jógee mu waxoon it maam Cheikh dañu war na leen euh, du ngeen rawante yéenay bokk lépp maam Cheikh Anta feebar na ak Serigne Afia maam Cheikh Anta feebar na Serigne Afia seet si ko bi ko Serigne Afia seet see ci ngoon gi Serigne Afia nelaw moom moom mi ko seet waaw ñu xëy suba maam Cheikh Anta nelaw nga xam ne kii daa nelaw tey kii nelaw suba te waxoon na leen yéen ay bokkale lépp nga xam dañoo denc denc gii tey xëy denc kële xam naa 40 année quarante et quelques yi la jàppatuma date bi nag waaye xam naa année quarante et quelques la war a waaw nga xam ne rawante dara ñoo bokk lépp loolu moom mooy li nga xam ne moo dox ci diggante sama ay waajur nga xam ne leen li li nekkoon seen liggéey lépp mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek waaye waaye lépp Sëriñ Tuubaa rek moo leen ci meñ moo leen ci nàmpatal moo leen defar moo def ci ñoom lépp li war a nekk ci ñoom waaw hmm. incha allah. li may message daal. waaw li may wax comme message daal mooy nit ñi nañ gën a góorgóorlu ci jaamu seen borom ndax yàlla mi leen fi indi indi wu leen fi leen lu lool jaamu yàlla dong tax yàlla indi fi. keneen ku fi def leneen yaa ngi nax sa bopp nit ñi nañ sax ci ak njub nañ sax ci gore nañ sax ci bennoo li leen di divertir ci seen diggante lu ci bari ci seen intérêt bopp dong la waaye kenn ku ci nekk ba xooloon intere l'islam xool intérêt réew mi diversion du am mukk Sëñ Tuubaa daan wax ne ñaar ñu bokk jublu yàlla te jubawuñu am na ko jubadi am na ko jubadi de waaye buñ fekkee yàlla dong nga tax ñu ànd jubadi ko mënta am loolu nag valable na ci Sëñ Tuubaa ñëpp ñu bokk bëgg Sëñ Tuubaa te jubawuñu rek am na ko jubadi ndax Sëñ Tuubaa neex naa liggéeyal lool ndax foo nekk mën nga ko faa liggéey te rek lañ ko mën a fayee nag rek lañ ko te rek mooy liggéeyal yonent bi salaahu salaam mooy liggéeyal diine mooy liggéeyal yàlla jamono jii ñu toll nag moom dong ci moo ñu ci mën a génne ndax ab jullit bu jaaxle dellu ci yàlla rek moo ko mën a musal ndax fii réew mi toll ku xam ak ku xamut war ngaa mën a xam ne àdduna bi moom li ci des bëreetut ku ci waaw ku ciy naal say naal it na nekk yooyu naal yi ëllëg yamal xiyam waaye fii gis nga fi ku naal ba noppi balaa noppi rek suñu borom jël ko ndax lii yëbbu nit ñi moom daa mel daa ci seen takk ndeer taxaw ginaaw kenn xamul kañ la kenn xamul fan la kenn xamul nan la ngalawaay buy buy ñëw nan la fekk ci lu rafet loolu kat moo la mën a dimbali ndax dañuy wax ne ñëpp ñu wax ëllëg ëllëg ëllëg yemal xiyam àdduna dañuy wax ne àdduna koo fi bëgg a gis boo góorgóorloo mën nga ko gis waaye nag ëllëg yemal xiyam moom dafa wuuteeg àdduna ndax ñi daan bokk lu ñuy def rek ñoo fay gisee bu fekkee da ngeen bokk di def zaahir ñooy def zaahir rek ngay gisanteel foofu moom fa ñuy nekk yàlla bu ñu fa nekk nii bu dee da bokk nag di def lu baax ñoo def lu baax rek ngay gisanteel yàlla ñu yàlla yóbbu foofu te defal ñu màggalu jàmm te itam di waxaat rek ci safoor si ndax ni def ci tali bi doon kiimaan lool nañ yërëm nit ñi dañ dimbali nit ñi sëñ ku ci dolliwul dara waru cee wàññi te ñii ñëw ci sëñ tubaa su bëgg sëñ tax ñu fi ñëw nañ leen dimbali waay nañ leen xeetali ndax ni ñu yokkee paas yi metti na lool ba pare tey dawal bi doy na waar doy na waar goo xam ne li fi nekk ci accident lépp loolu ñaanuñu ko yàlla waaye nag nañ nañ dimbali nit ñi daal nañ dimbali nit ñi ndax nit ñi accident yi bari na te nit ñi sonn nañ lool lol dal mang koy ci mang ci ciy ñaaxaale suñu mbokki chauffeur si ñu gëna a def ndànk bu baax ndax dama dem du jël du du gum waaw lol rek moo ci moo ci am sant nañ leen bu baax yeen tam ba site bi ci dik gi dik fi di leen ñaanal suñu borom defal leen télé bu mag a mag ba ngeen xamne lepp lu ngeen yeen rek ci liggéey ci réew mi ak ci bitim réew yépp suñu borom defal leen ko di nuyu ñi nga xamanteni ni ñëpp ñoo fi ne ci salle bi ne ci kër gi ci liggéey beeg ñepp ñu ngi sant ñëpp te leen ñaanal màggalug jàmm suñu borom dajalewaat ñu fi ëllëg dajalewaat ñu fi ay ëllëgi ëllëg ci barke borom Tuubaa Xaadim Rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam jërëjëf. de des 221 noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaar yéen ak seen i téléspectateur di sant bu baaxit ci euh, dikk gi ngeen ñëw fii ngir dékk nu micro ci bisub sëñ Bàmba bi nga xam ne amuñu lu dul moom bis bi nag ni ngeen ko gisee rek noonu la demee. ñun ci suñ jëmm dañuy génn suñuy néeg ñun ci suñ jëmm dañuy génn taxaw ci liggéey bi ndax rek jàpp nañu ne liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii ngërëmul Sëriñ Tuubaa rek la ci bépp murit di di di wër jàpp naa ne sax ka nga xam ne moo jóge Ndakaaru yorut benn dërëm taqale paasam ba ñëw ngërëmul Sëriñ Tuubaa lay sàkku ñun ñii dajale fi nit ñi ngërëmul Sëriñ Tuubaa la ñuy sàkku amuñu benn loo xamante ni bii euh, dañ dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy def wala taalibe di ko def ñu di leen ci bàyyi déedéet li ñuy bëgg mooy ñëw ci waañ wi lépp lu ñuy def ñu def ko barki démb rek li ñuy bàyyi fii ñun ñi ñëpp ñun ñëpp dañoo nekkoon ci mbay mi ndax jàpp nañ ne ngërëmal Sëñ Tuubaa moom la murit bu nekk di wër ngërëmal Sëñ Tuubaa moom la murit bu nekk wër te jàpp naa ne ku ko am mooy sa njariñ fii di sa njariñ fële kon nag ñun moom la ñuy wër te ni ko taalibe yi di wëre rek noonu lañ koy wëree waaw waaw ñun ñun fi fii lañ dëkk waaw fii lañ dëkk waaw waaw même bu dul màggal fi lañ fi lañ fi lañ fi lañ dëkk waaw mbokki taalibe it wax dëgg yàlla ba màggal gi tàmbalee ak léegi lépp lu ñu yëkkati yëkkati leen nañ ñu ko lépp loo xam ne def ñu ngi ko fay def ci liggéey bi lu ñu bëgg a yëkkati sax ñu ne ñu déet ñun ñooy forcé rek di def ngir xam ne dafa wuurut ci màggal gi nga bàyyi sa sa sa ay taalibe rek ñuy def waaw ndax waaw du ñëw doon sa mag ndax sëñ Tuubaa boo masaa dem ëttam ba fële ca njaareem mag ñi ñi nekk ay rakkam ak ñi nekk ay doomam ak ñu nekk léppam benn benn benn traitement bi rek lañ daan am ku ci nekk liggéeyal Sëñ Tuubaa rek nga daan def amul taalibe amul rakk amul dara waaw bu demee ba doomam muy Sëriñ Fàllu Mbàkke euh, yàlla na ko yàlla fay jaay ak njureelam jënd ko ak taalibe kon ak taalibe rek a fi des am na bis euh, mu dajale mag ñi daan ne samay mbokk nañ ma féete wetuk ndeyjoor samay samay samay samay taalibe nañ ma féete wetuk càmmoñ ne tuut mu génn daan mbokk yi na ngeen daan ne taalibe yi na ngeen ma moytul sama mbokk yi ndax amul lu dul man daan gees yam ci mbokk yi ne leen na ngeen ma moytul sama taalibe yi ndax amuñu lu dul man waaw ndax awma lu dul ñoom ginnaaw bi sëñ mëndumbe xabbaan ca la jóge ca mbokk ya dem ci taalibe yi daan na mbàkki ñun ñu am la moo nu gënal fuuf nga am ñu ñu moo gënal fuuf ñu am la waaw kon sëñ Tuubaa am la nga bokk ci alalam moo gën fuuf te ñun ay taalibe rek lañuy lañuy lañuy la sàkkoo doon te moom lañu fas yéene doon waaw waaw jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa Mbacke waxtaan wi leer na am na solo lool euh, comme niñ leen ko waxee rek xam naa ne dinañ ñëwaat fii ci fekk mu gën a féex ñu gën a waxtaanee yi nga xamante ne moom mooy ay maamam ki i waajuram gën koo détaillé incha allah je pense ci euh, Dakar waa 221 ñu ngi fii nii ci toujours màggalu Touba euh, Serigne Moussa Mbacké la woon euh, ci kanam tuuti ñu ngi waat ca Jumaa jaak yeneen bërëb ñeneen ñi ñu ngi ci résidence Khadimou Rassoul donc doo leen rate dara ak le Dakar waa 221 jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah